alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asalaamaaleykum warahmatullah a ah mbokk yi ñëwaat nañu ak yéen ci xew-xew yi nga xam ne xew na fii ci diggante jullit ñi ak yéefar yi diggante Iran ak Amérique diggante Iran ak Israël maa ngi ko defal nag benn titre ne al jaysu alladi ya al jaysu alladi la yuqarquhir manam a arabe bane won kenn du ko not nag gaa mujj nañ ko not waaw mujj nañ ko not xam nga israël dafa na ñoom dañoo yore armée bo xam ne du masa daanu kenn du ko not lu bëgg def ko te kenn mënul ci dara mu nekk ci biir alamul islami di lëmbe américain yi sas samp ko fi te alamul islaam yi gën a ñàkk fayda ndax ummatan wasatan yi yàlla wax ci alquran ba léegi nit ñi xamagunu lan la ummatan wasatan yi yàlla wax ci alquran moo di alamul islaam yi fi mu nekk juróomi bunti addina yi nga xam ne ku ko tëj addina ne ràpp dootul ubbeeku mi ngi ci seen loxo te ñoom seetluñ ko benn bi mooy Midyax Jabal Taarix mooy fi tax Gibraltar mooy fi gaa yi jaar Barsàq mbaa Barcelona foofu su Algérie wàccoon ak Maroc rek tëj ko kenn dootu fi jaar fa ca des mooy Midyaq Urmus ca côté Iran foofa bu Iran wàccoon ak ak ak ak Imaaraat rek tëj ko kenn dootu fa jaar fi ci des mooy Babul Mandab foofu su su su su Djibouti wàccoon ak Yaman tëj ko rek kenn dootu fi jaar fi ci des moo di moo di canal de Suez foofu Égypte ko moom bu bu ko neexoon mu ne bu fi kenn jaarati kenn dootu fa jaar te yii buntu ma leen wax bu ko bu ko monde islamique tëjoon. 48 heures gaa yi sukkuraam ci seen kanam mbaa guerre mondiale day déclaré loolu mooy ummatan wasatan fu waay ku kujem penku jëm sow te yore te yore li ñuy te te yore li ñuy wax bato di nga jaar ci bunt yi mbaa dem ci jaarulee doo dem ñun yàlla jox nañu armée yu dul jeex du xaaj bu dee ni li nit ñi soxla ci àddina muy pétrole ak gaz ak yu demee noonu ñoo ko jàllukaay yi nga xam ne ku fi jaar jàll ñoo ko yore loolu moom la américains yi xam ak tubaab bi ba tax mu ñu samp Israël foofu ci ci déngëre boobu ngir mu mën leen a gardeel bunt yooyu bañ di fi jaar saa yu leen soobee waaye ñun ñoo di ummatan wasatan waaye xamuñu ne ñun ñoo nekk ci centrale bi ñooy séddale waaw léegi nag Israël dafa bombardé woon benn consulat boo xam ne ma nga ca ma nga ca ma nga ca Damas ca pays réewum Syrie ba rey fa juróom-ñaari soldat yoo xam ne ci Iran lañ bokkoon a fukk ak ñaar sax la waaye ña ca ami garaat ñaar la waaye am na yeneen soldat yi ca bokk ba la amee nag Iran ne bii yoon nag moom Israël doo mën a rëcc nag danaa fayu waaw karabaane nga Amérique ba mu rey Xaasim Suleymaan ma dóor Amérique ca qaidatu aynul asad ñuy yaakaar ne Amérique dana fayu Amérique yor ndong affaire ba yem fa ñëpp ne pat ba léegi France daal di xëddeen loola jàll na ba Iran ne dinaa fayu duuroon na aynul asad waaw la nag Iran ne dina dóor aynul asad ba noppi déclaré ko da ngeen yaakaar ne Iran dafa ragal Amérique Iran ragalul Amérique waaye Iran li muy sàmm mooy soldaari yi américain yi picc mu dee ci loxo lañ mbott mu amul mbott mu mbott mu ñu yeew lañu lu leen seen gouvernement sant danañ ko def te xam na ne sax am na ci ñoom ñoo xam ne la seen gouvernement di santaane ànduñu te dañoo amut pexe ndax léeg-léeg nga gis ñu dem ci benn réew ci réew yu jullit yi bu ñu ñibbee daanaka genn wàll armée ba yëpp dañuy tuub nekk ay jullit te loolu jullit ñi xamuñu ko loolu la Iran xam ba tax bu ko Amérique cokkaasee fenn buy fayu danaan danaa fay waxtu sàngam ci béréb sàngam loolu yaari yëfa ngi ci yoo xam ne yii Iran da koy def te nit ñi duñ ko xam Amérique nee na picc waxuma ko waaye weñ mënut a tiim fu mu nekk te te daanewu ko weñ mënut tiim fu mu basé te dina daaneel weñ wa ak li weñ tuutee mu ne weñ rek bu tiimee suñ baas danañ ko daane loolu ay fen rek la ak i nappaate dong waaye Iran itam moom it ne toog ba toog ba benn bis mu ay quatre ci ngoon xaw ma trois heures mu ne ko Amérique. yow de weñ sax bu tiimee sa baas nga daane ko mu ne waaw mu ne ko huit heures yi ngoon dinaa la bombardé bul bul mbéttuma la dinaa la bombardé ñuy wax ne ah Irak rag Iran ragal tam mu def ko yow ko ragal di nga ko songu nga nga signalé ko ko quatre heures de temps avant nga di ko song Iran daal di ko ne dinaa la bombardé te Aynul Asad laay bombardé wax naa la ko nag juróomi heure avant ma koy def radar yaa nga fa machine yaa fa. lépp nga fa heure ba jot mu timbax fa ay bomb gars yi nag dañoo daw dugg ca kër yi nëbbatu xam ne lii mënuñu ci dara buñ ci mënoon dara def ko mu timbax fa ay bomb ñi ñii explosif yi tourné na seen i yuur ba yóbbu nañ leen yóbbu leen Amérique ñee ña ngi leen di faj ñee dof nañu wératuñu mais ki la ki la jox heure may la cinq heures de temps ne dinaa la mbéj bay boo sa lex bi na nga ko sàmm nga ne ci lex bi di sàmm na ci lex bi di sàmm ba mu dikk mu tëgg a mbéj te mënoo ko appaare mais kooku bu doon patt ba yàgg mu mbéj la nooy def bu doon bu doon patt ba yàgg mu la réel say ko ba jeex ñii naan am Iran dafa ragal Amérique mu tax mu di ko wax non non Amérique moom la Iran bëgg a xamal na yow tekki woo dara ndegam ne nga sa traité waaru réew weñ mënu faa dugg te yëguloo ko bépp base boo teg ci àddina muy baasu armée kenn mënu laa ma jox la heure ne la bi sàngam weer te waxtu teel dinaa la dóor weer waxtu wa jot ñu dóor ko waaw ki la averti sa dóor la mais kooku bula la bettoon dóor la daf lay rey mais mais politique boobu Iran di doxal nit ñi duñ ko xam dégg nga lan moo tax Iran balaa dóor yéefar wax ko ko lu tax yéefar bi dóor Iran du ko ko wax foofu rek ngeen di àtte mbir mi xoolal juróom-ñetti heure ba Israël yégee ne ba Iran ne déclenché naa ay bomb yu ànd ak ak ay ay dand dawal ña nga jëm Israël bomb bi ma nga jëm Hat Shalim beneen ba ma nga jëm Ramoun moom wax ne fi mu bëgg a dóor nee na Hat Shalim ak Ramoun lay nar a bombardé ndax Hatchalim ak Ramoun ñaari base nawaal lañ yoo xam ne ay roppalaan dañ faa jóge woon bett ma Syrie bombardé sama consulat da ngeen ma ay bomb reyal ma ay nit avertise naa leen heures de temps avant ma leen di dóor Hatchalim la benn roplan bi jóge Ramoun la benn roppalaan ba jóge dinaa bombardé Hatchalim ak Ramoun wax na leen ko juróom maanaam fukki heure avant mu leen di dóor léegi ñu déglu bombardement wu Arselim ak Ramoon man damay teg ngeen di dégg Arselim ak Ramoon ñi ñi wax ne bomb yi daluñu seen place werante loola tek ci ngeen bu teg ñëpp di ko seet nañ ba xam bomb ya dal na fam déet المطار المطار المطار المطار المطار المطار dinañ ko dégg noonu bomb ya dal na ca matar ya matar yi nga xam ne di at salim ak ramoun ira iran bombardé na leen démb am nañu nag miqlaax daawud nee yoo sax bu rombee Israël maqala Daawud dina ko dina ko tere waaw am nañu missile anti missil patriote américain nee nañu ngelaw sax bu rombee foofu ab patriote dina ko téye Iran déclenché na ay avion yu ñuy daan yi dawal ak ay missile patriote ay ay missile yoo xam ne balistique la diggante fi Iran taxaw ak fa mu jam benn bi. junniy kilomètre la ak juróom-ñetti téeméeri kilomètre ak lu topp beneen bi ñaari junniy kilomètre la leen dànde yéen ngeen ne Iran amul doole dànd barab boo xam ne ñaari junniy kilomètre nga ko dànde ndànde yebal kon jamono ji nga xamee ne Iran déclenché na roplaan yi dànd dawalam yooyu ak misilam yooyu muy pettangal yii ñoom xamoon nañ ko Amérique mi wax ne moom weñ sax du naawee ci kaw asamaan xam na ko Amérique mi wax ne moom melentaan yi nen ci biir su sax mi ngi koy gis mais ñoom ñu ngi gis Iran bi ñuy déclenché seen roplaan yooyu France jóg na Angleterre jóg na Amérique jóg na otaan yëpp yëg nañu ko Iran sànni na jumam yooyu xëy na nag missile balistique yi douze minutes la ñuy am egg mais roplaan yi daan dawal ñoom ay huit heures de temps ay ay dix heures de temps la ñuy am egg dañoo yebal roplaan yi daan dawal yi nga xam ne ñoom ay huit heures de temps ay dix de temps la am yegg def leen ñaari kuréel jiital benn ba yooyu dem lu sori ndax deux cent trente cent trente kilomètres à l'heure moom la daan di dawal yooyu di di gaawee ci kaw asamaan deux cent trente kilomètres à l'heure loolu bariwul loolu mënees na koo jam ci ci jamukaayu tubaab yi mu ne mu ne benn xaaj bi bu ñu egsee ba dal yéen waa Hamas yéen waa jihaadul islami da ngeen déclenché seeni missile sànni ko biir Israël bu leen jam nag kenn bu leen rey nit mais sànni leen ko ci jamu Israël rek su ngeen ko sànnee léegi kon. Euh, missile patriote yeeg yooyu dañuy jiim a fil yooyu pour ñu bañ a dal ci suuf loolu tam la gaa yi def mu def première tranche bay tuuti def deuxième tranche toog ba mu des douze minutes mu déclassé troisième tranche bi te troisième tranche boobu nag douze minutes la ñuy am ñoom egg fa ñu jëm mais bi ñuy iraan am la lu ci américains yi daaneel foofu te réew leen a continuer am na luñ fi daaneel terewul na continuer américains yi ñu ngi ci baaru baarul ahmar ak seeni gaal seeni gaal tubaab yi ña nga fa Angleterre nga fa ànd ak Israël gi damu fu mu toll mais terewul gars yi atteindre nañ ñaari place yi ñu soxla woon muy qaidatu at shalim ak ramoun waaye ku la wax ne maa ngi lay song birib sàngam ak bërëb sàngam nag laa bëgg songu te mënoo fexe ba du dinaa fa songu waaye ma mu may la dix heures de temps ba noppi door la fa mu waxoon ne falaa lay dóor <laughs> mais loolu kay wax dëgg yàlla xanaa Amérique am na bombe atomique am na doole mais Iran moom ni muy defee ak ko gis xam ne Iran faalewul américain yi dinaa def nangam bërëb sàngam laa koy def ci waxtu sàngam avertise naa la waxtu woo jot mu def ko ba mu ko ne dinaa la dóor ay misil ci aydul asad neuf heures et demi ci ngo euh, huit heures et demi neuf heures ci ngoon wax ko ko cinq heures de temps avant américain yi waajal seen bopp heure ba jot mu dóor fa misil ya mu ne leen dinaa toj hat shalim dinaa toj Ramoun ñu ne ko lu tax mu ne leen ndax at Salim ak Ramoun ay roplaan ñoo fa jóge dem bombardé sama consulat ba ca Damas rey fa ay nit dek loolu benn déclaration la ñaareel bi mu ne soldaar si bu leen dàkk fenn foo xam ne su ngeen ko dàkkee ci biir Israël rey fa ay civil ndax l'islam d'accordul ci ku rey ay civil yoo xam ne bokkuñu ci geer bi ñaareel bi avertissez leen leen ñu law nëbbutu ji foo xam ne la danañ mucc ci bomb yi waaw ñetteel bi wax leen américain yi ak waa israël ne leen béréb sangam lañ soxlaa bombardé ak béréb sangam pour ñu mën koo aar ba ko bombardé mais bombardé nañ ko après bombardé nañ ko après waaw ñaareel bi ñaari kilometer kilomètre lañu daan déplace biñ doon bombardé te bombardé nañ ko après dama bëgg nit ñi di seetlu ne Irak Iran gi même ba muy xeex ak Iran non Irak noonu la woon boo xam ne dinaa bombardé béréb sangam dañ koy annoncé ca suba ne tey ci guddi dinaa def nangam ci te da koy def da koy def mais sax boo mënoon ñu wax ne Saddam Hussein amul doole ji tol noonu mais OTAN am nañ doole ji tol nii war a mën a défendre loolu ba du am ñaareel bi dinaa bombarder Israël ñu wax la ko lu tolloog dix heures de temps bu dee yow yaayam moom addina bi yaa ko yaa ko yaa ilif mais fa nga teg say missile di ko lancé ma lancé fa missile toj ko mais mënoo ci dara mënoo ci niiri waaw mënoo ci lu dul di xoole waaw ak di wax di wax Israël naa ko moytul de boo fi defee lu tax xeex bu dul jax am waaw loolu loolu la xam nga boo na yaay bërëm àddina yaa man ñëpp nga yebar sak suqu muy tooñ ba tooñ koo xam ne ragal nga ne bu ngeen bu ngeen songoo yee xam naa ne bu moytulee lii tooy bu jegul ci di nga sonn na nga ko ma diw ndax bëgguma sama sama sutura xoteeku waaw Israël moom li mu dëkk li mu dëkkee woon mooy tooñ Iran Israël waxoon na ne ma ànd ak Amérique ma ànd ak Amérique moo ci yem Israël ne woon Israël ne woon na ma ànd ak Amérique ak ma moo ci yem waaye Iran dinaa ko bombardé waaw dinaa bombardé Iran dina yàq seen usines yi bii boo tubaab yi a jàppale ma si boo tubaab yi bañ maa jàppale loolu dana waxoon dina dina dina dinaa Iran ne ko maa ngi lay moom loolu ko wax maa ngi lay maa ngi lay bombardé heure tel ci waxtu tel béréb sàngam ak béréb sàngam laay bombardé dinaa la ak maa ngi lay ku ci gën a ñi ma morom dinaa la kenn xamul kañ la di te maa ngi lay jox na ko heure te béréb sàngam laa la bëggal te fa mu ko wax ne fa ko def foofa la ko def toj na at salim garab padaan ya naawe woon toj na raamuun te loolu la waxoon ne dina ko def almatar almatar almatar almatar misil ba dal na ca dal na ca ba ya to da waxoon ne eh, dinaa bombarder aéroport bi gaa ko fekkee ñoo ngoogu di wax déggal yuuxu gone ak jigéen ña mu ngoo di nga bani israil ay ragal lañu amuñu benn pexe de xanaa yuuxu ak daw rek bu leen gisee ni gën a jax rajaxi mel ni ngéntal jinax lu muus dugg yàlla leen xam dañoo ragal dee dégg ngeen leen <laughs> <laughs> mu ngoog raaytu raaytu raaytu kay almatar mu ngoog bombardement wu matar wu Hatsami Hatsalim ngi noonu ak bombardement wu Ramoun te ñaari place yooyu la waxoon ne dinaa ko bombardé te bombardé na ko <laughs> مباشرة على الإسرائيلية مبو. طلقت الصواريخ نعم. والمسيرات نعم. الإيرانية من الجمهورية الإسلامية في إيران نعم. إلى مواقع إسرائيلية في أرضنا المحتلة آه، فلسطين كنا نشاهد هذه الصور والمقاطع التي تم تداولها ونقلت لوصول المسيرات لوصول الصواريخ وكنا نشاهد أيضا المسيرات والصواريخ ما فوق قبة الصخرة وواحدة من التعليقات التي جاءت أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تحمل يعني رسالة بدلالة أن تزور القدس وأن تزور الأقصى غير مطبع هي الصواريخ الإيرانية التي وصلت إلى القدس المحتلة والتي نشاهدها فوق قبة الصخرة إذا هذا مشهد كبير مشهد waaw ndaw saa ngi wax yéen a ngi dégg dégg na arab nee na la Iran waxoon def na ko siyaare na baytul muqaddas te siyaare wu ko ci coobare Israël misil yi tiim nañu jumaay baytul muqaddas bombardé aéroport u At Shalim tiim nañu jumaay baytul muqaddas bombardé aéroportu Ramoun rëtloo nañu mboolem kuy banu Israil ñu nekk ci mbedd yi di falax falaxi ah, ah, kenn ku ne xamatoo foo jëm waaw euh, taran naasu sukaara wa ma um sukaara walakin asabul asabul xaami la shadid waaw am maanaam boo leen gisee ci mbedd yi ñuy daw kenn xamut foo jëm dañuy ñii dañuy daw jëm nii ñii dañuy daw jëm nii yuuxi jàpp kaw jàpp suuf waaw te nee ñoom ñoo man ci àddina bi jëy sulla si laa yox ar lu tax yow ñaari missile kese ñaari missile balistique kese ñu natt ko ci benn béréb wax la fa missile ya jëm ne la booy boo toog bu la rombee tam jëm siwul ci yow mu romb la nga tiit ba sa tas sa kumba daw di dang dang fu ne jëm fa Israël duñu nitee dara tekkiwuñoo dara hablun minallah wa hablun minan naas ablun min min min min tawreet wa ablun min america loolu kese lañu yaakaar banu nu ñëw taxawal seen bopp tekki dara ci kaw suuf il faut ñu nekk ci ay ngule yu ñu nëbbu mbaa ñu nekk ci nëbbatookaay door ñoo tooñ nëbbatookaay bi ñu yaakaar nag mooy bombe atomique yi nekk ak ñoom ak bombe atomique yi nga xam ne ñoom la américains yi yore waaye ci gàttal daal Amérique yëgoon na ko Iran def na la waxoon bombardé na ñaari aéroport ya nga xam ne fa bomb ya jóge woon dem dal fële rey fa ay nit Iran nag ab geeram ak bu mu doon moom bëggul rey ay nit ndax day bëgg a jàppale ci yonent bi waxoon bu leen xeex ak ku xeexul bu rey màgget buleen rey jigéen bu leen toj ay tabax buleen taal am mbéy bu leen rey jur goo xam ne du ngeen ko lekk loolu la yonent bi sallallahu alayhi santaane te Iran lu guerre bi métti métti ci loolu la ne moo tax balaa guerre dina ne dinaa guerre balaa dóor dina ne dinaa dóor ba dana dana wax it ne ci waxtu sangam laay door dina wax ne it jarul ngeen di tiit man ci béréb sangam laa nar a dóor te saa yu ko waxee ci àddina rek def na ko ba ne dinaa bombardé Aynul Asad bombardé na Aynul Asad bi mu ne dinaa bombardé At Shalim bombardé na ko ba mu ne dinaa bombardé Ramoun bombardé na ko Israël nee na ko dinala la bombardé sama roplaan yi mën na jógee tel aviv naaw ba terrain naawaat ba ñibbi te du ma jël fenn essence mu ne ko d' accord waaye boo dee paree ñëw boo delloo doo fa fekk aéroport boo dal xam nga gëmut ko israël gëmut wax waaw gëmut ne ni ko iran wax ne bis boo déparé tel aviv nga di ma bombardé ci iran Dakor? accord mais booy dellu siwaat sa roplaan du fekk fu dal dana fekk ma bombardé sa aéroport te Israël xam na ne mais moom roppalaan la mën a naawee pour dem bombarder ci Iran Iran ca Iran lay toog na ko Israël béréb sàngam laa soxlaa dóor al innamal harb ar ramiyu julit ñi yonent bi def ñoo tëralal plan de guerre ñu moy ko xumay ni nag plan boobu jaar yonent bi nee na innamal harb ar ramiyu bala ngaa mën a xeex da doon daan daan na mooy ku la dand jam te egsi woo ci moom Israël li mu yaakaar moo di naawe foofu jaar Ordon jaar Irak dugg Iran bombardé ko ci roplaan naaw ñibbiwaat Iran nag li mu yaakaar mooy toog fa toog ca dëkkam ne usine nucléaire ba ci béréb sangam aca demal bomb ba dem na fa ril moom noonu lay def waaw aéroport ba ca dëkk sàngam tollook ne tel bomb ba dem dal foofu waaw kii toog këram dóor la te du génn këram te yow da naan def fexe naa ba am roplaan boo xam ne su naawee dina mën a ñëw foofu dellusiwaat te du soxla woo te du soxla woo soxla woo te du soxla woo essence kii ne la man soxlawu ma roplaan bal bi ngay yenu ba dikk dóor ma ko moom laa yónni mu dikk dal ci sa kaw te du ma ànd ak moom roplaan du ci bokk kooku mënu leen a xeex Israël bis bu ko Iran annexé dina ko annexé dañuy da ngeen a xamul rek fi mu nekk nii nag xaaminaa yi wax na la mu waxoon ca njëlbéen nee na mboolem réewi arab yi sës ci man te américains yi am fi ay base benn base bu ci amerique naawee ñëw ci man wala mu sànnee fa missile danaa raaf dëkk boobu bu yeboo ngeen tëj nag seen seeni seeni seeni seeni i seen seeni seen i seen i seen i jaww waaye koo ci xam ne kii sa jaww roppalaan tiim na ko ñëw sama dëkk bala koo tiim ñibbi dina fekk sa dëkk boobu dina ko raaf ba ko ordonne déggee a ah, ordon tëj na bosam nee na man kay man kay ku ku ko mucc kay du joxee biir naa ci génn ndax man ginnaaw sama réew ci ordonne ci Palestine la bokkoon anglais yee ko dagg jox jox na ko te ñu ko jiitee nga dëkkoon Arabie Saoudite doon fa ay buur ginnaaw nun fii nu nekk dañ na ko abalkat ku ngemboo ku ngemboo xotti leket du ñime du ñime làmbi detteel ndax kon léegi mu def yaram mu ne ndax leket moom boo dettoolee day day toj ordonne moom mënul wax ndax ordonne ci ci Palestine la ñu dagg def ko muy ordonne ci Palestine la bokkoon kon moom bëggul mukk Palestine am indépendant daa bëgg rek ñu nekke noonu ci nii li wana la te duñu egg ci waxtal anaay mukk ci àddina bi loolu moo tax ñu wax waaye tëj nañ nag seen siin siin seen seen jaww moom tëj nañ ko nee nañ mayuñu may ñu Israël jaar fi ak i roppalaan waaye ndaxam bi misi di jaaree foofu li mënoon ngeen leen a sàkkal pexe misi di xaami naay yi mënoon ngeen leen a daane waaye daanaka doy na waar mi daal ngoog mbir mi daal ngoog foofu la ñuy yem ak yéen tey bu ëllëgee nañ dugg ba xoot ci biir waaye Iran daal noonu na Israël dinaa la bombarde bombardé na ko newoon na ko waxtu sàngam laa lay bombarde ba mu jotee def na ko nee na ko béréb sangam ak béréb sàngam it laa fas yéenee bombardé te foofa la bombardé te Amérique mënu ci dara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.